waaw acca waaw baax na maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp foofu waaw ñu ngi lay fay dafa am loo bëgg a laajte xam naa line bi continue nañ continuer bon nañ continuer oustaz waaw ndeysaan mhm. eh, li ñuy bëgg a wax itam nit ñi nga xam ne ñooy woote mhm. toujours ñoom xëy na ñun mën nañ leen a dégg ñoom duñ xam ne ñu ngi leen di dégg waaye suñ gisee suñ science yi ñuy def rek nañ xam ne ñu ngi leen di dégg nañ continuer rek ñu wax bismillah hello ma ne sa jëkkër am na am mun na na pour pour pour jënd xal wante def ko lan la islam wax ci loolu jërëjëf jërëjëf islaam islaam islaam du ko wax dara islaam li mu wax jëkkër wala boog nit islaam sa waxut ak jëkkër ci mbiram tubaski islaam jullit lay waxat góor la jigéen la doom la mag la ndaw la ba xaleel bu tuuti sax de soxna si eh, islam ñooñ lay waxat charte yi mooy lan dangay nekk jullit mhm. nekkuloo ci aj màkka Eh, ba pare da koy man yooyu moo ci ëpp solo léegi koo xam ne charte yi dajee nañ góor nga jabar nga jë jëkkër nga xaleel nga dang ko war a def sunna la soo ko manul nag mhm. doo ko def déedéet mhm. mooy li fi jàngoo rek laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha nga kon Euh, su fekkee na nit ñi dañoo gëm ne tabaski jabara ko moom xam nga fii la problème bi ñëwee jëkkër ko moom déedéet jabara ko moom maanaam jëkkër tabaski bi muy jënd jabar moo ko moom lii moo dee indi problème bi moo tax ngay gis ni mm. euh, ku ku xulóog jabar ah. jëkkëram bañ xeex ñu ñëw ci code bi ñu ne parce que jëndalu ma tabaski waaye jënd na fale benn foo mos a dégg sëy charte sëy su ci fu ci tabaski bokkee wax dëgg nekkul si de ah nekkul si ndax danay wax ne hmm. danay wax ne suma jëkkër julli julli lut ma wala julliwut ma ba tax ñuy xeex tabaski moom du farata sunna la ci quoi léegi lu tax mu war a indi problème mhm. soo liñ ne tontu soxna si mooy mhm. tëbëskiib jabar warut jëkkër. ñun jigéen ñi daal dañu war a jàngat bu baax a baax. tëbëskiib jabar. Mhm. warul jëkkër ni jëkkër di tëbëskee la jabar war a ñoom ñaar ñëpp suñu amee nañ ko def ci kër gi. Mhm. waaw loolu. mooy sunna defe naa waaw bisimilah. bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen programme bi. ahlan wa sahlan. <laughs> Euh, dama bëggoon rek ngeen yokk ci dara. waaw. Euh, moo doon li li mat tabaski. Mhm. ngeen wax ko mbooloo mi itam ñu xam. Mhm. wax nañ ko. mun naa am borom mun naa am xar lu tuuti tuuti waaye fekk mat na tabaski. wax nañ ko. loolu bu fekkee ne mbooloo mi itam yëpp nañ ci loolu waaw jërëjëf dina jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi lay nuyu suma nijaay di la ñaanal nag jërëjëf fan ngaa koolee maa ngi koolee Banjul fi ma toll nii waaw Banjul waaye nag waa ñoom mi la waaw baax na jërëjëf jërëjëf waaw soxna Aysatu xam xëy na bi muy join si. waaw dafa fekk ñu paase loolu. waaye waxoon nañu ne. Mhm. charte yi li ngay xar mi ngay uti. Mhm. wala bu gàtt bi ngay uti. Mhm. na dafa am charte yuñ fa wax. na ko dang ci bàyyi xel. bu nekk xaleel ba mu ëpp. suñu ko waxee mooy. Eh, lu mu tuuti tuuti ay at. dégg nga dafa am mut at. wala yu demee noonu. dégg nga feebar. bu mu làggi mhm. bu muy soox mhm. bu mu patt bu bu béjjén ba damm mhm. bu nopp ba damm walla xar xar xar ba ëpp wala bu geen ba dog yooyu moom lañ fi waxoon soo yooyu su fekkee ne dajale rek mat na tabaski góor góor moo ñu gënal jigéen xar moo ñu gënal bëy bëy moo ñu gënal nag nag moo ñu gënal gëléem loolu ci ñun kër gi ñu bokk mooy kër imaamu Malik mhm. ñun loolu moo ñu gënal waaye soo demee ci ñeneen ñi nag mhm. defe naa am na ku nekk si line bi waaw bisimilah asalaamaaleykum hello asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam Njaay Njaay Njaay Njaay asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Njaay Njaay yaa ngi nekk foofu ak sa séeréer bi <laughs> maa ngi toola suma pol bi <laughs> maa ngi sonal suma pol bi waaw waaw. ñu ngi rafetlu programme bi trop. Njaay Njaay waaw. jëndul xar. yàlla daf ko yónnee xar. mu jotee ko mu jotee ko doomam lan moo ci indi jëndam xar moo fi indi njëndam xar. waaw loolu benn la. ñaareel bi. lan moo ci boole jigéen. jigéen parce que góor la yàlla farataal pour mu war a rendi doomam mu jox ko xar mu rey xar bi. Mm-hmm. waaw ñaar ñaari question yooyu laa amoon. jërëjëf jërëjëf jërëjëf rajo Thion. jërëjëf ñu ngi sant suñu wayjur woowu. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu ci ndeysaan bëgg gi mu bëgg. programme bi ak diine ji eh, liñ ko bëgg a tontu foofu mooy. Mm-hmm. E, mbir mi léegi sunna su yonent bi la muhammad sallallahu alayhi wa ibrahim hankay yàlla moo ko indiloon xar booba yàlla daf doon wat lam bëggoon a def la bëggoon a e, e, soppi léegi nag loola doxatul mu ngi doxee ci xar Mm-hmm. te léegi yàlla du indil kenn xar na te léegi sunna la <laughs> yàlla du jël xar di ko indil nit ñi ci jóge ci àjjana dégg nga su boobaa kay kon xar yi dañ koy jënd ñaareel bi teg ci <laughs> li mu wax ne góor lañ ko joxoon loola itam misaal la woon rek maanaam Ibrahima alayhi salaam la yàlla moo bëggoon a def nangam yàlla wattal ko ko léegi nag mu nekk nag sunna su yonent bi saa salaam bi mu sunna su yonent bi nag la nekk sunna ci ñëpp ci góor ak jigéen ak ñëpp mm-hmm. soo loolu la tontu euh, la tontu ah, ku yàlla yónni woon xar àjjana mu baax wax dëgg yàlla <laughs> fa bisimilah am na ku nekkaat si line bi asalaamaaleykum. allo. waaleykum salaam. jàmm rek. allo. ahlan. laa dégg bisimilah. sant yàlla. naka alhamdulilah. waaw. yaa ngi di bëgg lekk rek. ah. Senja man saw la saw. Ah sa mbokki pol la pol yëpp a bugg a lekk moom. waaw na nga def. pol yëpp a bugg a lekk bul ko ko jagleel moom kenn. maa lay sant ci sa programme bi. waaw. di la ñaanal nga yàgg fi te wér. allah allahumma amiin. yàgg jiite affaire yi. wa salaam jërëjëf waay. amiin jërëjëf. Ya ya ok. soxna Aïssatou. nga kii soo gisee mu ñëw mën wax. waaw. dafa reer ba pare waaye bu reeru ah, toon du waaye daal lekk moom poli yëpp la moom <laughs> amut kii amut kaa amut jàllo amut baax poli yëpp la lekk ba suur daal moo tax mu ñëw man fee sowen sowen ñoom yàlla yàlla daf leen natt ci bëgg lekk waaw soxnaay surtout kon loolu mooy tabaski waaw su ko defee kon dëgg-dëgg na ko nit ñi mm-hmm. na ko nit waajal mm-hmm. su ko defee jaaykati marchandise yi it ñu bëri yërmande ci ci nit ñi. waaw wax dëgg doole yi amut. doole yi amul. bu ñu gis ne bu ñu gis ne nit ñi soxla nañ ko rek. Mhm. ñu jaayee ko nu leen neex. ba yaakaar naa am na keneen ku nekk ci line bi asalaamualeykum. allo. asalaamualeykum. bisimilah. waaw ñu ngi lay dégg bisimilah. misali am na ku lu nekk day jaay jënd ten thousand fifteen thousand twenty thousand ah thirty thousand kuna price share la wa ay thirty five thousand thirty thousand xari lay wax waaw mu ne ni ñu ko jaayee ok léegi nga yow yow yow man dégg ma wolof waa man man traw de ok ku nekk yaa ngi jëndal loolu yow sa sa sa xarit wala sa sa mbokk yi amul dara waaw yooyu nga dem waaw soxna euh, sëriñ bi mhm. xam nga lu nekk am na njëgam mhm. waaye lu nekk itam mhm. la ko tax maanaam yéene ba lañ cay seet su fekkee yow sa jubluwaay mooy maa fi gën a rëy xar